naka la. Ah, Adama Mbaye la. Eh, tey yow lan nga woon ci waay jiitu bi di Ousmane. waaw Ousmane suma frère euh, ñu bokk lépp nekk tamit nit ñoo xamante ne ay amis d'enfant lañ juddandoo yarandoo defandoo lépp waaw mu nekk nit ku baax nit ku yiw nit ku nit nit ku maal nit nangoo liggéey ñu bokk moom lépp nag maak ñi toog ñoo defandoo lépp. ñu ngi koy jàll àdduna yëpp deen wax ne metti na wax dëgg yàlla metti na ba fu metti yam mais nag euh, jaam suñ boroom mooy dogal te nangu nañ dogal bi waaye Ousmane daal jëmm la joo xamante ni jëmm ju baax la jëmm ju jëmm ju nangoo liggéey la ñoo defandoo lépp nag waaw taaw moo taxoon fii léegi muy Souleymane mu tuddee ko suñu sama rakk sama ami d'enfant mu nekk ni ku baax ni ku yiw daal wax dëgg yàlla métti na nag mais yàlla suñu borom mooy mooy dogal te nangu nañ dogal bi waaw. bi nga yëgee choc bi nag euh, bu fekkee jëlee nañu kaw ndax bi mujjee déggante mooy bi ne suba la julli dañ mujjee toog nii di di waxtaan dëgg yàlla bi ñu ko yëgee jëlee nañu kaw métti nañu waaye dañoo dellu ci li yàlla wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañu jóge ci yàlla lañu dellu waaye bu fekk tamit métti na mais ci ci ci ci ci liggéey la génne àdduna te dara taxuloon muy daw lu famille ak njabootam quoi waaw métti na mais dañ koy sante yàlla te xam looloo neex yàlla ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla na xeppee àjjana waaw ñu ngi waxee tamit ci kàddu Abdoulaat nga xamante ni moom moo ñu jiite ñi nga xamante ne ami d'enfant lañ nekk ak moom muy Abdoulaat Saw mi kon nag ñu koy métti na trop na wax dëgg yàlla métti na ba fi métti yàlla mais nag ñu koy sante yàlla daal. waaw di ko ñu ngi fay Moussa Gueye ndax Ousmane sama doom la sama jarbaar la comme nu ma ko waxee fajar léegi rek noonu la sama dëkkandoo ndax bi ma koy xamee fekk fekk tout tànk la fekk amul soxna amul dara te man bàyyi ñetti banta moom nag ku baax la koñ bi mosul xuloo kenn mosul xeex ak fu mu nekk rek jàmm lay nekk ja waaye bi ñu nekk nii bi nga koy mayee fii bi nga jëkkee di baas fii moom la doon baas pare moo doon laal baas yi basan yi taxaw ba jumaa ji pare encore moo doon laal basang yi moo doon kii kii keesu jàkka ji sax ci moom la nekkoon jàkka ji xam na bu baax la defal na loo xam ne xéewal lu weeru koor bi ñu pa jógee nii démb am dix-neuf jours mooy weeru korte bi tey am weer weer jours kon doo nga leer bàkkaaram set na te mu nga gaañoo ci saxiit dama amee accident nga dee ci ñu texe nga kon yaa yaa yërëm ko xar ko àjjana yaa yàlla fay ko xolom yàlla yàlla fu mu féete waajuram yi yàlla féete waajuram foofu teg leen loxo encore njabootam yàlla yàlla waajuram yi mu yor njaboot ba njaboot bi ëpp ko ay fan ëpp mag eh, loolu laa amoon pour moom dama mën a wax rek ngeen gaaw Ousmane sama sama dëkkandoo la sama doom la sama jarbaat la Ousmane nag wax dëgg yàlla xam naa ne wax bi moom dañ koy ñaanal rek ndax Ousmane si koñ bi daal mooy doomu ñëpp mooy taaw xale yi man sama doom yi moo leen gën a féete mag donc Ousmane dafa nekk nit ku baax am disponibilité nekk fi si koñ bi jàkk ji dina ko sedd ndax jàkk ji bu ñu koy samp fi Ousmane moo ñu jiitale xale yi yëpp donc usman daal danga koy ñaanal dina Ousmane moom kenn mësu ko dégg si coow fi xale bu baax la xale bu yaru la dañ koy ñaanal yal na ko yàlla xaral aljana waaw loolu de laa am lu mu si lu mu si mën a wax daal mais kii tamit dëkkandoo la moom Ousmane daal ñëpp xam nañu ko fii si koñ bi waaw waaw ku baax la ku baax la wax